yéen ngi woor asile la lekku leen ba regg asile la naanu leen ba doy le asile la amu leen fas asile la amu leen gëléem yu doy asile la amu leen ay mbubb koŋ mbubbu koŋ mooy mbubbu gladiateur yooyu kon julli di lu la dalati na nga seet ci waa Badar ah fattaqullaa boobu du ragal yàlla fattaqullaa seet leen ci ñi fattaqullaa xalaat leen ci ñett téeméer a fukk ak ñett bu dóor junni fattaqullaa xalaat leen ñett fas yu dàq téeméeri fas fattaqullaa xalaat leen juróom-ñaar fukki gëléem yu dàq juróom-ñaar téeméer gëléem fattaqullaa mu ni ma wàccee taw seen gannus gi maase ñële doon tarxiis ñuy mbartalu fattaqullaa julli di seet leen li la àllakum bu boobaa yéen tashkuru da ngeen sant yàlla te in la in shakartum waaw bu ngeen ma sante ma dolli leen kon ndam baa ngi noonu la waaw ma wéyal tuuti euh, ñu kii euh, ñu aj waxtaan mu ñu julli awa yonte yàlla Muhammad ba mu amee ndam sallallahu alayhi wa sallam la yebal Abdullahi bun Rawaha ak Zayd bun Harisata ak bisru bun bara nañ dem bëggal waa Medina ne jël na ndam isaan yonentu baa nga ñëw sallallahu alayhi wasallam moo tax xare boobu malayka yi sax dañoo wàccoon waaye benn malayka xajul ci nit waaye yàlla def ko illaa bushra ni ko Idrissa Juma Jàllo waxee bushra ngir bëggal leen kero jibril moo jiitoon armée malayka yi moo tax suñu ko suñu ngand bi di bàyyi Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass yal na yàlla taas ci barkeem mi ngi naan keroog wa atathu wa atalhul amlaaku jibrilu fihimu eh, bàyyi moo baax mu ne wa atathul amlaaku malaayka yi dikkee nañu seydinaa muhammad xaritam baa ngi ci biir te mooy jibril wa atathul amlaaku jibrilu fihim ah ñu ne bàyyi jibril dafa doon dox ak tànk mu ne déedéet xaala xayzum faqdumi lil qitaal fas bi jibril waroon bàyyi na ne xayzum la tudd te fas bu jigéen la de ndax dafa ne uqdumi faqdumi jiitul loolu jigéen la izhabi góor izhab jigéen izhabi góor kul lekkal jigéen kuli uktub bindal góor uktubi bàyyi nee na jibril mi ngi naan fasam ba du mii kon ndek fas ba wajan la woon yàlla na yàlla fay cheikh al islam ah kii buñ ko amula wuti ko alhamdulilah bañ ko yàlla may yàlla yàlla fay ko jibril keroog waaye xamuñ nu ñuy reyee yàlla yàlla moo nekk patron bi ci kaw naan fadri bu fawqal anaq wadri minhu kulla banaanin da nga nit dóor baat yi foofu la nit di dee <laughs> ah dóor leen ci baat yi eh, lii doy na waar eh, keroog Iblis ñëwoon na ànd ak waa Makka moom ba mu gisee ndax comme moom mi ngi nekkoon asamaan xam xàmme na malayka yi ah, ci la na déedéet man bokkatuma mm, déedéet man li ma gis muy ñëw leneen la lee man ponkal bi la Jibril moo nekk nel di ñëw du ma yéen lu ngeen man man dem na seytaane nii la lay kalli kalli loo nag di la bàjjant la ba nga dugg ci lu araam yàqu nga mu daw bàyyi la nag mm-hmm. mm-hmm. yal na yàlla mosal ci seytaane jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam uh, yonante bi nii la de uh, ñuy joxe ay njot mu ne waa Màkka waa na bariwul ñu jàng ku ñu jox fukki xale nga jàngal leen ba bu ñu bindee nga liir boo bindee ñu liir mu ne nga nekk gor kon lislaam yàgg na entraîné njàng askan bu raw njàng la rawe ñett moo yore réew yaru yaay ca kër ga njàng xale yi ca daara ja wóoluwante wóoluwante président bi tey wóoluwul ministre yi ministre yi wóoluwul mu de cabinet yi gouverneur bi buggul préfet bi doon jàll doon gouverneur préfet bi bëggul sous préfet bi jàll doon préfet ni moom kon fu hmm? jàmm di amee ku leen di ragal seen ndigg nga doon seen xarit boo doonee syndicaliste di xaas di xacc sa duraar ñu daal la xeex réew dana neex ci kaw lii lislaam dafa yàgg a jàng aay bi njëkk a wàcc mooy ban iqra kon yéen xale yi grève bi bàyyi leen ko xale yi grève bi bàyyi leen ko dellu leen jàng jàngi ñoom ñu ngi kontaan ñoom ñu ngi kontaan de parce que seen maam yi commandé nañ suñuy maam ngir njàng seen baay yi suñuy baay ngir njàng ñoom ñu ñëw commandé ñu ngir jàng seen doom yëpp yóbbu nañ leen bitim réew ñuy jàng ñii ñu ngi Canada ñii ñu ngi Japon ñii ñu ngi France ñu ñu ngi Amérique dañuy ñëwaat commandé leen rek dem leen ngeen jàng lu nekk ngeen def ko pacifiquement ootee ngeen di taal kan ngeen ko taalal suñuy impôt taxes yi ñun ñoo koy fayaat ñu ngi nii seeral lépp bàyyi yëpp sonn nañ parce que campagne baa ngi ñu ay psychologue lañu dañuy seeral lépp bu demee na ba campagne ba campagne bi des benn weer ñu wàcceewaat ñu ne ah kii kat ku baax la nga wàccee na njëg yi de ay psychologue lañu dañuy kalli kalle naan euh, wàccee nañu luwaas yi yow moom moo kër gi ngay wàccee luwaas kii dafa leboon xaalis ci banque bi tabax këram dem na retraite doomam bi jàng bitim réew ci la koy fayale moom mi ngi yor feebaru jabet ci lay jëndee ay comprimés jabaram mi ngi ànd ak cancer ci la koy faje doomam yaa ngi ci privé yi ci la leen di yore yow nga kër gi da ngay wàcce loyaas bi wàcceel di nga moom benn réew ñetti ñetti usine Dangote mi ngi fi ciment di Sahel mi ngi fi Sococim mi ngi fi ciment gën a seer Sénégal ñuy yokk rek lu ñore ñu ne yàlla baax na waaw ah, yàlla yàlla béy sa tool moom ñoom ñu ngi ci kaw ne nañ ne muut duñ ne muut mukk yow ngay muut te waa ji muutul nga ne na muut du muut mukk day muut muuti rek ah yow yaa ngi lekk sa wàll jabar ñu ngi lekk sa wàll ndey ñu ngi lekk ñoom lekkul nga ne ko na na tekk dina tekk mukk ah, dafay muut kay ni ngay muutee mu soog a ne muut waaye moom muutul ni ngay muute nga ne ko muut day muut muuti rek ah, mooy geraw yu bari yi rek santé ngi gërëw awa enseignant yaa ngi gërëw bu ñu leen joxee seen gëdd kenn du génn ci mbedd xale yi dellu leen ngeen jàng li ngeen di wut na ngeen ko wut ci kaw yar ci kaw teggin waaw na ngeen ko wut ci kaw yar ci kaw teggin kilifa yi nañu yërëm ndaw yi yàlla ni muy soppee gaaw na de diggante benn minute mu yàq sa nguur ana Alain Laurent Gbagbo bu Côte d'Ivoire tey mi ngi ni ci kaso yi moom ak soxnaam Simon Gbagbo ñu ne ko gàññe nañ la mu bañ ci duus lañ ko fekk génne ko mu ngi sol seen ma kii la ay mataar doon dar te Côte moo gën a riche Sénégal tey baat boobu mi ngi ci loxo Cour pénale internationale ñu nar ko atte ana Charles Taylor bu Libéria tey ñu ngi ko jàpp anamu du fan yi ñu ngi laajte Yahya Jammeh di ko laaj Guinée Équatoriale ne dañ koy delloo si atte ah ki doon naa mooy Babli Massa ah Babli ah oñaadi o ñaamala kon ñaanooñu leen ja euh, musiba waaye dañ leen di jàjj dañ leen di soññ nit ñi nag ci leen moom kenn rek la mooy yàlla nekk ci ko di xasante xasante baay xasante ndey yow doo gër yow nangam nga yow nangam nga nañu bàyyi ñi fi jaaroon daaw ñu def li man dama doon gis sengoor du jullit waaye dafa doon naan laay njomboor dafa ngeen njombo xar kuy béy sikket nag yëkk ganaar seq lépp njomboor dafa doon tooñ Ablaye Wade ne ko bopp bu àttana lu kawar naka lay àttana réew waaye daaw ko daaw ko saaga bu gisee Cheikh Anta comme Cheikh Anta euh, dañ doon kalante lool boo gisee mu daal ko tooñ ci séeréer ne ko yàlla xoox borom bopp bi foog naa xoox mooy bopp ci séeréer yàlla xoox borom bopp bi wax na dëgg kooku li nekk ci boppam bu ñu ko jullee ñun ñëpp ñu baax kon nañu nañu jëfandikoo nobles bu ñu xasante Sénégal ay garmi lañu ku jur sëñ Touba maa ngi dégg maa ngi jéggalu ci kàddu gi ku meññ sëñ Touba meññ xaadimu ras kii Alhaji Malick meññ euh, Maulana Cheikh Ibrahim wallaay da ngaa war a doon référence waaye war a doon koo xam ne dañuy gis ci yow ci yu ñaaw wala yu bon yal yàlla fay yàlla. yàlla bu yàlla tas yaakaar kon xale yi na ngeen dellu ci daara yi jàng bu leen gaañante bu leen xeexoo bu leen ŋàññante bu leen toj weer yi bu leen toj kaar bu leen lakk ay pneu ci oto yi dem leen ci nitu yàlla yi bu ñu leen defee intervention léegi mu sotti nit yàlla yi boo gisee nit ñi déggatuñ seen kàddu mooy dañoo xam fi ñu feetu ah xam ngeen ne weeru koor bi ànd nañ fi suukar ma delloo du dara damaa bëgg a dund di gor te joxe naa suukar ay saaku saaku waaye na ma des di gor bu doon ay homme d'état ñoo ma ko jox ma jël ko waaye ay homme politique bëgguma utiliser ma bàyyi leen des ak yàlla dem naa barki dem ba desetuma benn suukar jàkk bu ma gis ma joxe fa juróomi kilo damaa ndogu génn di xalaat lan lay jox njaboot bi ëllëg Cheikh Ibrahima ne juróom-ñett saaku juróom juróom saaku yi yëpp yaa ko moom te fekk joxe naa ba mu jeex kooku it xaaju man kaana lillaahi kaana lahu lii rek la lii rek la alxaji maali la fa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal wara yal na yàlla fay alxaji maali si alxaji maalik moromam néew na déedéet fan nag fa ko yàlla teg tegu fa keneen fa bi xayrihi wa bi xayrihi jalabal wara boo demee ci jàkka ja mooy élément ba boo demee ci tribunal ba mooy juge ba boo demee ci daara ja mooy jàngale boo demee ci tool ba mooy njaati ga boo demee ci hôpital ba mooy fajaate lépp yonent yi moom kenn ko doon def tey buñ na yaay sëriñ dootoo nangu kenn gis la du ma deñ di ko waxaat bekkara muy sax ci xel yi ndax yow wattaqu yawman turja'una fi ila allah bés bi ngay dellu ci yàlla keroog ngay baax la keroog ngay yàqul la keroog lañ lay naw keroog lañ lay seexlu ndekk kenn ku njëkk gi li tax mu néewi lu tax mu saw lal bi lu tax mu kabina lal bi lu tax mu wocc lu tax mu bori ndekk dafa doonoon waaba jiba waaba jiba mooy lan yow jigéen nga dañ laa ànd ci kër ngay sëy sa jëkk sa pàppaay jëkkër lu mu wax nga def ko sa yaayu jëkkër lu mu wax nga def ko sa jëkkër bu la waxee nga ne ko maa bañ bu ngeen tëddee ci lal bi sa bopp nga teg ko ci palaasu tànkam bu àndee boppam foofu nga wëlbati sa tànk yóbbaat ko ci wàllu boppam bu ne may ma ndox nga ne ko ndaalaa ngi ni du ma sa jàng noppil du ma noppi ndawal du làmmiñ du lekk la ya lam bu duñu togg ko lu la sa jëkkër wax nga bañ di ko ŋóobi di ko ciifatu di ko ŋeleju di ko diiju di ko kokkali di ko mbellee tey jaamu papam ak yaayam sa jëkkër bés bu reppee ñëw sa papa ci papa wala yaayam ne sama soxna si dama ko dama ko bëgg a fase sa papa ne boo ko fasee ma ànd ak moom parce que gisuma jigéen bu gën jigéen gi kooku comme garabu kóoni la fa mu nekk keram nekkul foofu ki la ànd ci kër gi di sa jëkkër hmm, munu laa gis bu la gisee dafay tiit bu la gisee xolam dafay yàqu bu la gisee dafay jaaxle te bu la gisoon dafa war a bëgg te mu gis la di tiit te sa lépp def na ko xiifoo maroo dëkkal na la dëkkoo na la jigéen yooyu bu dee rek dafay dafay nëb balaa ñu koy suul rek mu nëb balaa ñu koy sang fekk mu yàq lal bi kon sama mbokk jigéen ñi dégg ngeen loolu képp koo xam ne waaba ba jibala bu dee noonu lay ma kooku di kenn nee leen kenn waaye ñaareel gi mooy karabaane karabaane balaa muy dee moom tam noonu dana néewi dana toj dana yàq lal bi ci wanag bu mag wanag bu ndaw dana yàq miir bi ci wocc ak gori hmm? lan mooy karabaane mooy sa jëkkër ngi ni doo ko defal lu sedd xolam ay xaritam bu ñu dikkee yaa ngi daw di lal basang bi yaa ngi taal ataaya yaa ngi leen di xot xollil gerte bi ah te sa jëkkër mi ngi toog fal naan cey lii muy defal samay xarit bu ma ko defaloon te mënu ci dara bu ay xaritam dikkee ngay ree ngay tëbakalal di teg ñoom te dafa aram bés bu sa jëkkër reppe na sama soxna si man dama koy bàyyi sa xarit dafa leen a boo reppee ba bàyyi ko man maa koy jël li ñuy am sa kër bu ñu ko doon am suñu kër duñ ñëw sa kër seetal mi ngi jàmmal ay xaritu jëkkëram di fitnaal jëkkëram bu xaritu jëkkëram yi xewlee mu dem wàll ndeyu yi jëkkëram bu xewlee moo fay njëkk wàll mbokk jëkkëram yépp lu fa xew moo fay njëkk def ca te jëkkëram mi ngi ci kër gi faalew ko bu deere dana yàqu kooku mooy karabaan ah ñetteel bi mooy kan ah? mooy pànk pànk mooy kan mooy man ak sama jëkkër keneen bokkatul sa yaay bokkul sa bàjjen bokkul say jigéen bokkul man rek man kër gi samay doom ak samay mbokk même sa jigéen bu la seetsee nga génnee cinq mille jox ko ne ko joxal ma sama jigéen mu daal ko jox mille francs na ko sa sa càmmiñ li la jox fekk cinq mille nga ko jox say mbokk jëkkër bu ñëwee nga xatal leen ñu génn say mbokk bu ñëwee nga seet leen néegi lii suukari koor la jox ko samay jigéen nga jox ko say mbokk bàyyi say mbokk jëkkër yàlla na yàlla musal ci kooku ñeenteel mooy kan mooy gànc gànc doo ko fekk këram mu ngi ci mbedd yi rek mi ngi mel ni laalu mbéb nga def ci tànk yi ana nga dañ maa ndeyale fële ana nga dañ maa màggale fële ana nga siyaara diw laa demoon ana nga dañ doon mottali kaamil fa laa demoon ngénte diw laa demoon saraxu diw laa demoon kooku boo ñëwee këram boo ne salaamaaleykum doo fekk nit weñ ñi nekk ci malaan wi ci ñoo leen ne waaleykum salaam weñ na ku mun ku mu ku lu fay nekk kenn rek mooy mucc mooy soxna soxna du la diiju soxna du la xas soxna du la ŋàññ soxna du la tiital soxna du yàq sa alal dina la sàmm ci boppam sàmm la ci diinaam yàlla nañu yàlla may soxna ni mu mel ci jigéen noonu la mel ci góor ñi ñaata góor ñooy jaar ci paas restaurant ba lekk bi seen biir ne guuj ne mag dafay sàcc boppam sa waa kër di lekk mbaxal ñemoo maa tudd tey Saalum mbaxalu fan ah <laughs> ah déedéet tey kay kenn dox mbaxalu saalum jumaa jëpp saalum saalum ñoo ko feel ah, wax leen mbaxalu bàmbari waaye <laughs> kontaan naa yéen ñëpp ree ngeen yal na yàlla fay leen yonent yàlla Muhammad ci la yebalee ñuy bégle ne gañe na waaye ndeysaan ñu ngi daje ku koy tàgg si doomam ne ko roqeetu jiitu na innamal usri yusran yàlla yàgg naa def lii de innamal usri yusran moo tax ñeent sahaaba yépp euh, teew nañu ca Badar waaye Ousmane teewul Ousmane Seydina Muhammad moo ne ko toogal ci kër ga ma wuutu la ca Badar lii doy na daraja moo tax xayrul xadim suñu jàmbaar bi nee na ah wa bihi qaala nabiyu Ousmaanu yashau fii sabaina alfan wa kullun xaquhu naaru nee na naa Ousmane moom kenn yowmal qiyaamati dana ram juróom-ñaar fukki junni nit ñoo xam ne safara moo doon seen cër ah ñu ne sëñ Tuba loolu ëpp na waaye ah? ah mu ne ma dollil la wa huwa allazi minhu taxyaa malaayikatun mun na xam nga Ousmane malaayika sax dañ koo kersoo ah nga ne xaadi mu ne wal Moustapha yonent bi sax daf koo kersoo ah? wal Moustapha nee na yonent sax daf ko kersoo mu ne mu ne falahu xadrun Ousmane ku bari garaat la de du benn garaat de mu ne bal aqdaarun ay garaat la bari la kon ñi koy naan yonante daf koo biir di moo tax demul Badar déedéet yonante biir diw ko jabaram moo feebaral mu nekk foofu ba mu faatoo mu mayaat ko ummu kalsuum mu faatuwaat muy jooy mu ne ko xam naa lu tax ngay jooy mooy dañu ne may naa la kenn mu faatu ma may la kenn mu faatu dañu ne da ngaa ay gaaf mu ne ko bu ma amoon téeméer dama la ko jox benn par benn ba mu jeex allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa léegi boo teeñee benn yoon nga téeñee ñaari yoon dootoo gisati kenn dañu ne dafa ay gaaf te asma bint umays dafa téeñee jaafar aboubacar jël ko mu téeñee aboubacar aliou jël ko mu téeñee aboubacar mu téeñee ali saxaaba yëpp daw jëm ci moom ne jigéen bu barke la bu doon tey ñun la boo dajek moom ci mbedd da nga ne dëmm baa ngi ñëw waaw suñu ngëm tey ak ngëmu démb du benn yàlla yàlla sàmm leen yàlla na yàlla aar leen yàlla bu yàlla tas seen yaakaar bi jaay Seydina Muhammad eh, kontaan naa bu baax eh, balaa may feeñal sama kontante eh, maa ngi jaale xadratul ibrahimiya alaaji Ousseynou ñas ku miinoon fii la daana ànd ak alaaji Ibu Njaay bu gàmbul di ñëw saañ fi yàlla jël na ko ba denc nañ ko yàlla na gis ak bàyyi yàlla na toog ci ndeyjoor seexu tijaani ñu bokk toog ci ndeyjoor seydina muhammad sallallahu alayhi wa di jaale xalifa bi tamit soxnaam su baax si mooy soxna sukkaynatu haydara ku amoon diina ku ragaloon yàlla soxna kilifa la woon mu gaaw mu yéex yàlla nañ ko fekk aljana yàlla na gisante ak maamam ak ñi faatu yeneen bërëb ñoom ñu ngi leen di jaale yàlla na yàlla xaare leen aljana yàlla bu yàlla tas yaakaar yi yëngu-yëngu yi xewoon ci réew mi dañu ñu àddu woon ci maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla ba yàlla see giifalee lépp Sénégal mun na tàng waaye du lakke Sénégal mun na tàng waaye du lakkaate Sénégal mun na jeng waaye du tuuru mukk euh, mbir mi ñun ñoo ko moom nañu yéwénoo kenn ku nekk fa mu tolloon ngëmam ci yàlla la waxoon am na kilifa yoo xam ne bu ñu déggee nga wax ci yàlla dara rek ñu daal di yëngu am na benn waaye bu ñu te idée ji ah téere bi ñuy jàng ci Sénégal ñu ko tuddee kitaabu tasrif dafay jàngale conjugaison ki ko bindoon yàlla def koo natt mu weddu seexu tijaani yàlla ah édiye ji téere bi ñuy jàng ci senegal ñu ko tuddi kitaabu tasrif ki ko bindoon mooy édiye ji dafa mujjoon a weddi seexu tijaani ah bàyyi na nañu bàyyi téere ne ku weddi ku toll ni seexu tijaani ne moom bàyyi dootu ko jàngale ci xadara nañ ko génne ah waaye boo ko mënul doo ko génnee de waaye bàyyi julli gée def ay naafilaam balaa ñuy naan njël mu bindaat beneen téere bu mel noonu la moom la tàmbalee alhamdulillahi allazi tasarafa fi fi'lihi wa jalla man qad yàlla yàlla fay bay balaa ñu naan njël mu bindaat téere bu dàq boobu moom la ñuy jàngatee Medina mooy tuxfatul atfal dégg nañ ko kon ki yëngu woon ay way juróom noonu lañ meloon boo joxoñee diina rek nga gis seen tàngoor du noonu am na ñu tuddee Jean Lefebvre ba ñu amee indépendance ci année soixante yooyu dafa ne Afrique où tu du noonu gaawal balaa may saara noonu la Afrique Afrique où tu Afrique foo jëm foo jëm bàyyi daal di bind benn téere ne africain lil ifriqiyin Afrique nañ ko bàyyi africain nañ ko jagal dafa am boroom xam-xam yoo xam ne boo waxee ñu tontu la waaye ñoom ñëpp yàlla jéggale leen ci barke weeru koor bi Badar samedi la woon aljuma jëm samedi yontem badar aljuma la bu jëm samedi yàlla defar na lépp yal na yàlla tàppale xol yi ni ko bàyyi alhaji Abdou Aziz doon waxee yal yàlla tàppale xol yi yàlla jële fi béjoo jële fi xiiroo jële fi ŋaayoo ñu ngi ziyaare xalifa généro yëpp ña ca penku ña ca sow ña ca bët saalum ña ca gànnaar jaa ngeen jëf te bu leen wàccagum bëgguma nag kenn dem bu dul ngeen ndog bu kenn dem bu dul ngeen ndog Euh, bii passé Cheikh Ibrahima dafa def leen di defal surprise ah xaw ma ndax bii yoon tam def na loolu Cheikh bii yoon ban la ah ah na surprise nee na bu tey moo gën a neex ba lekkoon bu kenn dem euh, bu kenn dem euh, fatu màkka bi ñaari nag yi du alalu kenn lu leen lew la du politicien du gouvernement sama alal du sama njàmbaar am na ku ko bëgg mun na ko yàlla moom ma ko jox delloo naa leen ko sa aajo bu jeexee loo bugg a denc rek alalu keneen la li ma yàlla jox ne ba ma ci paree delloo naa leen ko te it ñaari nag yëpp yéen ko moom lekk leen ba seeñaatu alal gu leen lew la kenn moomu ko budul yéen maa ngi dénk sama njobooti bopp sama dund gi ci zahir diis na waaye diisul ci baatin de cheikh bul dem ci kenn ne ko jox ma déedéet euh, du président du ministre du député du ambassadeur du réewu arab di def ay plan di nax arab yi jumaa ngay tabax orphelinat bul dugg ci yooyu lii ma la bàyyi muy siraatul mustaqim euh, na nga sax ci loolu rek incha allah yàlla dina andi ba nga doy la bul ne kenn jox ma addiya garab la bu ñoree rek mooy rotal boppam bul ko gësam taalibe kenn du ko campagne boo campagne taalibe la nga ko waxoon bu ko gisatu mu ne la ñukk dem ci keneen bul campagne kenn kaay ma jox la wird sama wird moo gën sa wird bi nu yàlla di gënee yàlla yàlla mënut a gën yàlla sama wird bi ku ko yore daf lay fóot ah yàlla ku ànd ak moom doo tilim bañ lay fóot dégg nañ ko ah, kon lii laa bëgg nga dund ñii ñëpp kenn du ci sa taalibe say xarit lañu say wóllëre lañu say soppe lañu bu lekk bàyyi leen lañu am bàyyi leen ko li nga am nga bokk ak ñoom incha allah li fi nekk yépp dew ma wuti ko fenn du hôpital bi du dërëmu kenn du centre social bi du du këru gan yi dew ma ci kenn ko jox ma wala dimbalam ah école bi noonu kenn du fay yàlla mi ngi àndi rek maa ngi def boo bootoo ci gannaaw yàlla yàlla yor sa lépp kon bootul ci yàlla wa man nasru illa min indillah ki mën a dimbale yàlla rek la euh, yéen ñi toog nii na ngeen bëggante na ngeen soppante na ngeen wóoluwante bu leen xalabante bu leen xeebante bu leen doyadilante na ngeen bëggante na ngeen joxante ca maa ngi ñaan yàlla ni ngeen dikk ak jàmm yàlla na ngeen dellu ak jàmm lu ngeen dégg ci man nee leen waaw <coughs> man nit rek la alkamalulilaay mot ciru yàlla la ah, sëñ bi ba mu yox baat bi du xa xaala nee ko waaw sëñ bi dafa dotom ah sëñ bi dafay soppi xaalis ne ko waaw sëñ bi dafay jaay nangam ne ko waaw sëñ bi dafay mbaraan ne ko waaw sëñ bi doomam nangam jabaram nangam xaritam nangam ne leen waaw ki yàlla yonent bi sax amul cent pour cent kenn amul cent pour cent yow bugg nga ba bëgga a dee am na ko bañ ba bëgg a dee abu jahl yegguñ ci ndax guddi gi waaye ba muy dee li mu mujj wax mooy tey la gën a bañ Muhammad ci démb kon ñëpp mënuñoo bëgg lu bu ma saaga buñ ma xase bu ñu ma ŋàññe lépp baax na bu doon comme njëriñu diina gi la baax na bu ma oto doon riic ci diggu tëlli bi te mooy njëriñu ummatu muhammad man accepté naa wallahi lazi laa ilaha huwa lu ma dal sama biir àddina te sama diina moo ko teg nangu naa ko nangu naa ko ngeen góorgóorlu ci seen kër yi yéen borom kër yi na ngeen muñal jigéen yi jigéen dafa am fit waaye amul doole jigéen dafa am fit dafay def ba pare di xaar conséquences yi góor na dafay seet bu defee li lan lay jur bu leen lekk bàyyi jigéen ñi bu leen naan bàyyi jigéen ñi na nga leen sagal nanga leen suturaal jigéen ñaar la booy jaamoo yàlla ak bu lay yàlla dégg ngeen ko jigéen ñaar la booy jaamoo yàlla ak bu lay jaamoo yàlla bi lay jaamoo yàlla mooy soxna boo ñàkkee mu wuti te du jaay boppam du la xas du la saaga du la ŋàññ du la doyadil kooku jigéen la moo lay jaamu yal na yàlla may ñooñu ñooy soxna ki ngay jaamoo yàlla na mooy jabar nga am soxna suy fen soxna suy mbaraan soxna suy wëndaalu ci mbedd yi soxna buy njaalo soxna buy fen soxna buy wuruj defal nga ko lépp tabax moo ci gën a rafet la lekk moo ko gën a neex la yére moo ko gën a jekk la waaye boo ne ñuul na mu ne weex na na ko muñ jigéen boobu ngay ngay jaamoo yàlla kooku jabar la du soxna kon ñu yàlla dénk jabar nañ gën a muñ xam ne am na maqaam bu ñu am war a am ci yàlla seen jëf yeggu fa yàlla teg leen ko muy naqar ci biir kër gi ngir ñu mën a yegg ci maqaama yooyu war nañoo doon waliw war nañoo doon xutbu war nañoo doon milliardaire waaye seen jëf mayu leen ko yàlla andi la soxna ci kër gi bu lay gàcceel di la tiiñal di la sëggal nga muñ ko rek euh, kullu man aliya faanin kullu shay'in haalikun illa wajha kullu nafsin zaa'iqatul mawti bu jeexul ci nii rek mu jeexee ci nii dégg nañ kàddu gi yal na yàlla sàmm yàlla bu yàlla tas yaakaar yal na yàlla samp ñu ba kenn du ñu buddi yàlla dëgëral ñu ba kenn du ñu sempi dañuy ñëw julli tàkkusaan ngeen toog tuuti rek ndog yi ñëw ngeen boole ko reer gaa yi déwénati na xam ne jëmm a ngi nii jëmm bu leen bëgg lool lool lool jëmm goo xam ne dafa jeex tàkk ci yéen bu doon sama sago la li nekk ci bopp bi damay xar bopp yëpp dugal ko ci biir waaye bu leen fàtte na Abdullahi la te yéen a ngi ànd ak moom ëllëg dana leen tàggu dem bu yéexee ak bu gaawee yëpp day am rek ni ngeen di déggee communication ñu ngi dem fatu Makka communication ñu ngi dem Badar ñu ngi mottali kaamil ci saañ ñu ngi def ju téeméer rakkay bés jot ngeen dégg seen góor gi yàlla jël na ko dellu na ci moomeelam waaye li ma leen di wax mooy réewu tey yi euh, na wuutu jooy yooyu keroog euh, xam leen ne jaamu yàlla la bu dikk jamono li yàlla digle am na lu mu ci def li yàlla tere am na lu mu ci bàyyi euh, sellam ak yéwenam sutural yi yàlla moo ko teg fii ngeen gis lu rafet ci moom waaye li yàlla xam ci moom bu leen ko waroon kenn du ko jege Abdullahi kese la yem ci kenn ku nekk sëriñ bi nga am nanga fonk sa sëriñ boo dee ñaseen boo dee cene ba cene ba boo dee waa Tiwaawoon boo dee taal taal ngay na Gunaas ngay ñaseen Léona ngay kaneen ngay gan gàngel sëriñ boo jàpp na ko téye dana la yeggale ci yàlla koo téye ci góor yàlla yi dina la yóbbu ci yàlla bu leen weddi benn nitu yàlla kii saazali la kii tijaan la kii qaadir la kii murid la kii naqasa bandi la kii laayan la ñépp yàlla la ñuy woo ñépp yàlla bi la ñuy woo bu leen diingat kenn kenn ku ne fi nga téye bul ko bàyyi mukk ne damay jëm ci sëriñ bi ak ku téyeegul fenn boo ñëwee ma dalal la waaye nga bàyyi fi nga téye woon ne ci sëriñ bi laa jëm loolu dafay andi fii wala dafay andi ŋaayoo te lislaam dafa bëgg a la ay doomam kon dégg nañu kàddu gi dégg nañu kàddu gi euh, ngeen moytu euh, ci kàddu yi wax yi ni na ngeen rafetal wax yi ni waqulu linnaasi husnan boo dajeg waa ji nga ne kii nga àndal ni kan la mbaa góor gi la mu ree ne kii mooy sama papa kii mooy góor gi màgget na léegi waaye boo dajeg ni nag kii mooy sa jëkkëru yaay day mer te jëkkëru yaay mooy papa kon alquran neen waqulu linnaasi husnan na ngeen wax ay kàddu yi rafet bu leen nax kenn bu leen naxaate incha allah fi ngeen jëm dangeen fa yegg bu leen dugg ci caay-caay njaalo da ngeen ko daw guddi ak bëccëg ay ceg daawun yi ay jumbax aawut nangeen ko daw jaaro ci nopp xam nañ ko jaaro ci bakkan ci indo xam nañ ko jaaro ci tuñ xam nañ ko waaye jaaro ci jumbax kon yow liñ doon nëbb yaa ngi koy feeñal de dégg wolof bi jaaro yi nopp xam nañ ko nit ku ñuul yi moom lañuy ñuy def jaarooy bakkan indo yi jaarooy tuñ am na waaye jaarooy jumbax yaa ngi ko bëgg a teg ci biti mooy jumbax aawut de te luy baaxul de njaalo mun ngaa tuub góom bi wér waaye lëgët bi daf fay des de da nga dem ba nekk maire nga dem ba bëgg a jàll ci nga na nañ jaar bi damaa juum fekk dafa doon def caaxaan ngay paa nga toog ci ngénte gi balaa ñuy tudd doom nga gis taxi di kenn nga ne mën naa dem dama am benn rendez-vous amoo rendez-vous de kii wàcc ci taxi bi moo xam sa lu bon te boo demoon ba nekk meilleur footballeur nekk meilleur buteur wala nga nekk politicien bu mag wala nga nekk borom alal mu jékki-jékki ne mes na menteng njaalo rek mooy def loolu nga am mbooloo mu seey nga am succès mu seey doon buteur bu rëy nga mujj gi boo duggee ci terrain bi doo marqué dara njaalo rek nga yoroon ay million nga wëlbatee ko di jël taxi njaalo rek njaalo baaxul njaalo baaxul làmmiñ dana njaalo bët dana njaalo waxatuma la awra nag te boo tëddee biir bàmmel dana ñëw nga ne ko yow ko xasaw kii fan nga jóge mu ne ndox mu si tilim biñ doon dugal ci yow yow jigéen ndox mu tilim bi nga doon dugal ci jigéen ñi moom la yàlla def maa jëmm ju ñaaw gi tey man maa lay wéttali ba yowmal qiyaamati ñu ngi naan paa bi tey mooy anniversaire xamuñ ne paa ñu ngi koy mbugal ci biir guddi gu nekk ruuxu yi danañu wër ci kër yi ah, sama doom day def na njàmbaar sama kër ga yàlla rek moo fi nekk yàlla na nga gudd fa waaye yenn ruux yi dañ ne sama kër nii ngeen ko def ay dansin ay kart ay mariage ay mbaraan seen mujj yàlla na ñaaw képp ku am baay bu faatu guddi aljuma dina ñëw wër sa kër képp ku am yaay bu faatu guddi dina ñëw wër sa kër bu gisee lu neex mu ñaana la jàmm nga am ko bu gisee lu bon mu ñaana la yàlla musibal la rek yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla fay yàlla wa ma zalika àlallaahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh